sëriñ Abdourahman asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi lay jot li am nuyoo bu bàyyi ko muy fédération bi ci ginnaaw seen jëwrin saraki bopp sëriñ Moustapha Mbacke Gaynde Fatma noo ngi lay jot li am nuyoo ci aw turam ak sori rekk moo tee mu jiite jataay bii waaye mel na ni wuutewu ko ndax le fi ne ci ay rakk aki doom ak i taalibe yépp moom lañu fi nekkal bis bii bis bu am taarix la ci mbooloo mi ndax ki nga xam ni moom lañuy ñuy fàttaliku tey te muy kus dul fàtte ndax li tax mënuñu koo fàtte yu bari la waaye bi ci gën a rëy rekk mooy likke gi mënu likke ci buumu liggéeyal yàlla te mu wóor nu ni sax mënuñu cee jóg waaye bëgguñu ko itam mboolem kilifa yépp a ngi fi di magi section yi wóof ndaw ñi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi li des ci timis ji bariwul moo tax nu bëgg koo gàttal sëriñ bi nu ndey sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ndekete li nu bëggal saa su boo dee dellu ci alxuraan ak sunna dangay tase saa su ak lu gën a leer ci yow ci lu rëy lim la bëggal te mooy ngërëmul yàlla abu hurayra dafay nettali radiyallahu anhu ni dañoo toog ak yonent bi aleyhi yonent bi ni am na aw nit ñuy ñëw seen gannaaw suhadaaw yi ak anbiyaa yi danañ leen ñee boo Hurayra nee na ñu ni ko ah alayhi salaam ñooña day bëggan nañoo xam ñu mu doon ndax nu joyal ci ñoom ak cofeel ndax ñooña jar nañoo bëgg nee na yonent bi ni ñooña aw nit lañuy doon ñoo xam ni dañuy bëggante ngir yàlla te seen bëggante ga alal du ko lal askan du ko lal ñoña li titlo sen nitu jamono du len titlo li jàqloo sen nitu jamono du len jàqloo ñoña nak nu yaakaar ni nu na nu yaakaar ni joxañ yoyu sa su ne bok na ci yi leral ni ndekete boole gi nu seigne Cheikh boole ak tiofel gi jaar ci digeunte yi ak taxawonte gi ta ay firnde leral ko ci congrès bi ñu joge ci taxawonte yi jaar ci digeunte nit ñi nun daal dañoo jàpp ni ñooñee ñoom ñoom la sëñ Cheikh bëgg nu doon ko alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ko yàlla fayal sëriñ bi mbooloo maa ngi lay ñaanal bu baax a baax liggéey bi sëriñ Cheikh daj na ci lu ne waaye bàyyi na fi ay jàmbaar yu ko sàmm lool aar ko waggar ko yokk ko itam te mooy sa mag yu baax yi nga wuutu ci jotaay bii di sëriñ Mouhamed ak sëriñ Abdul Fattah waaye alhamdulilah sëriñ bi yëf yi day bi mu yegsee say loxo nu day leen ciy gàtt gàtt ab xam-xam gis nañ engagement ak jéego ak coono yi mu la jaral ci anam yépp nag ci anam yépp ba tax na nun ñi mënta ñàkk lii day sëñ bi noo lay ñaanal waaye noo ngi sàkku yit nga ñaanal lu ndax liggéey bi rek lañ bëgg a yóbbu siyaar bi nag sëriñ bi baaxoo wan nan koo def ci gàmmo waye li sabab nu toxal ko ci 11 mars du sax sakku mbolo bu gëna bari mais sakku bokk yi gëna mëna gisé gise ndax biñ ko daan def ci gammo serigne Cheikh Abdoul Ahad mi daw ko mëna fekke ndax ma nga fa barab tayew la fa nekkal serigne kharim Mbàkke louga mi daw ko fekke ta ma nga fa barab tayew la fa nekkal serigne Cheikh taif mi at yu bari gammo du ko fi fek ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ta gis nañ ni liggey bi bari am na ci solo lool nag mbokk yi di daje tey gisee nu xam ni bis bi gën a yey nag ginnaaw Serigne Cheikh moo waxan ni yoon wi wala Touba yeyoo na bis bu nekk màggal rawatina dëkkam bii ak bisam moom. kon nag bu fekkee ni ci buum gi lan likkutoo di ci lëggéeyal yàlla yey na nag bis bi nuy dajewaat ak ki ko fi nekkal nu dëppale ko ak bisam bii nga xam ne nag ci lañ koy fàttaliku. kon loolu lenn la ci sabab yi ak mbokk yi nga xam ni daanañ ko yéene te duñ ko man ñu mën a ñëw fekkee si. loolu rek mooy sabab bi ñu jële ko ci gàmmoo indi ko fii tey alhamdulilah am na firnde ndax lenn ci bokk yi nga xam ni bëggan nañ ñu mën a bokk ak yow jotaay bii bokk kook seen i bokk alhamdulilah gis nañ ci ñenn ta yàlla dogalee nu fekkee at dee leen gisaat ñeneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbooloo mi sëriñ Abdourahman nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo. di leen jot itam ay chant ak mbégte mu nekk ci moom nee na cant yi itam li waral du dara rek lu xam gum nu xam ak gis gum nu gis ci liggéey bii nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Fatma da ko santaane rek xam na ne am nga yiw ndax li ko wóor ba wóor ko mooy liggéey bi moom ku ci nekk sëriñ Cheikh dana la fay fii dana la fay ëllëg kon nee na su leen ci gisee ak ni ngeen ci jàppee lim leen jaral dana xam ne yéen ñu seenu ak pay ëllëg ngeen waaye tey jii it dangeen jot seenu pay nee na loolu moom wóor na ko nàññ nee na sant na leen bu baax nag ndax yàlla dafa dogal lii mu fi fekk te fekk way juram sëriñ Cheikh Amadou Mbacke sosoon ko ñaari magam yu baax yi tamit muy sëriñ Mohamed Mbacke ak sëriñ Abdul Fattah kenn ku nekk bi nga wuutee sa wuutoo Cheikh wala bi la fi sëriñ Cheikh bàyyee taxawaay ya nga war a taxaw ci liggéey bii ñoom ñëpp kenn ku nekk neenu def nañ ko. loolee ñu nekkoon. gën a jëm kanam gën a dox nee na loolu bëgg googu ak yitte jooju dafa doon lu rëy ci moom waaye nag li leen waxoon ci njëlbeen rek la leen di waxaat moo di du ngeen sooy mukk du ngeen sooy mukk du ngeen sooy mukk ndax nee na sëriñ Cheikh Amadou Mbacke waxoon na ko te sax sëriñ bi nee na sëriñ Cheikh moom lim nu woo danoo wowut ci lu bees moom la fi suñ borom yónni woon yonent bi mu indi ko fi sëriñ Touba ñëw ne loola laay beesal nee na lool dong lenu sëriñ Cheikh woo te kon noonu loolu mooy xàllwu leer wi nga xam ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi indi woon nee na nag pastif bi mu gis ci mbooloo mi euh, daw na yaramam lool waaye jaaxalu ko ndax dafa xam ne kenn ku nekk ci nun ña ko boole ci yoonu murit ay maam lañ walla di ay baay yu liggéeyal sëriñ Touba mbaa ñu liggéeyal sëñ Modou Moussa mbaa ñu liggéeyal sëriñ Cheikh mbaa ñu liggéeyal ñaari mag yu fi jóge wala kenn ci njabootu sëriñ Touba kon kenn ku nekk ci nun sëriñ bi nee na wóor na ko ne fekk nañu bàyyil ko loo xam ne mën na cee consommer ba mu fi jóge waaye nee na loolu xam gu ngeen xam ne loolu ak yaafus la ndax bu ñu la fàggulee nga ñew di ci dund da nga wara fagul yowit sa njabot neena loolu moo tax li ngeen ci dañ ngeen di ci daj kon neena gis na seeni pastéef gis na seeni taxawaay mi ngi leen di ñaanal yàlla sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy borom kàttan kenn ku nekk lu mu gën a bëgg yàlla na sunu borom dogal loolu di la gën ci moom te mu defal ko waaye kenn ku nekk ci nu nit lépp lu muy ragal yàlla bu mu dajee ak loola sëriñ bi neena sunu borom moom bi mu nu andee fii lenn rek moo tax mu andi nu fi mooy ngir ñu jaamu ko maa xalaxtul insa wal jinna bu li yi suñ borom nee na nit ak jinne jaamu ma rek ñoo tax ñu bind ma bind leen nee na kon nag suñ raison d'être li tax ñu nekk ci kaw suuf moo ñu doon ay jaamu yàlla sëriñ bi nee na mënee suta doon ab murit te doonu ab jullit kon nag nañu xam ne sëriñ bi moom diina ju bees rekk diina diina ju jëf yonent bi sallallahu alayhi woon rek moom la yesal wa biyee jaddi di sabi loolu rek sëriñ bi waxoon waaye dara dara sëriñ bi soppiwu ko ca na yonent bi daan doxe wala nam bëggoon ku na doxe nee na ñu ko fi wutu yépp ci loolu rek la ñu ne nee na kon jaamu yàlla googu nag firiwut ne moo julli ak woor ak aj ak joxe asaka rek nee na loolu ci la waaye jaamu yàlla gi nag lii dox ci sunu biir ci sunu diggante ñu di ko war a jëflante muy amalaat yi nee na loolu ci jaamu yàlla gila la te yonent bi sallallahu alayhi moo waxoon ne ad diinul muamala diine mooy jëflante kon nee na sëriñ bi nee na nanu fonk li nekk suñ diggante di ko rafetal xam na ne sax ñoom ngi ciy jéego ndax ndaje yi ñu jàll rapport ya ñu def won na ko ne amul kenn ci nun ku man kuy fàtte moromu mu mënu amul kenn ci nun ku wér kuy fàtte moromu mu wér nanu loolu xam na ko waaye da leen di soññaat rek di leen wax ne li ngeen di def de fi ngeen koy def lu mu gën a bari gën a tonawu loolu moo tax mu di leen soññ ngir seen jéego yooyu ngeen di seqi ak fi ngeen koy teg lu ngeen co def ngeen xeeb ko te xam ne waxtu wu ñu leen fayee kenn ku nekk dana réccu lu mu jëlee woon dundam gépp def ko ci digganteem ak nit ñi sëriñ bi nee na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax nee na njabootam gi nekk ci wetamit mu di ay rakkam ñii di ay doomam. mook ñoom ñoo bokk rek lu ñu bëgg mooy dañ fee fekk ndénkaane loo xam ne ay jur ñoo ko sosoon di ci liggéey yàlla ñu ñëw nag ñoom itam ñoom ñépp kenn ku nekk xam ne la waroon ñooña ci tool bi moo leen ci war gis na ne nag yitte ji mu ko jox moom ñoom ñii ñépp mu di ay rakkam ak i doomam yitte jooju lañ ko jox te mu doon benn ñu jóg jëm ci lenn nañu xam ne loola moom lu mu rëy rëy ak lu mu jafe-jafe duñ ko fa fekk ndax sëriñ bee koy lijeenti kon ci pas pass yi ak ci yene yi rek lañu sëriñ bi di sentu kon neena nañu rafetal sunu yene rafetal sunu pas-pas te baña jombalé jombale sunu dara sëriñ bi neena lu way di am ci lu bax ak lu ma masa am ci lu bax ak kum mëna doon ak num mëna toll nañu xam loolu mané su am ci bir mbolo mi ndax neena loolu ci sëriñ Cheikh wax ndax da waxon ne su ma gisoon wenn yoon wu gën a gàtt wu gën a gaaw wu yóbbu ni ci yàlla danaa leen ca teg waaye daayira laa gis ci yoon wi gën a gàtt wu gën a gaaw wu yóbbu ni ci yàlla sëriñ sëriñ sëriñ bi waxaat na ma it ne na nga fàttali mbooloo mi ne sëriñ Cheikh day bariwaa na ku mas a bëgg euh, bëgg xam lu sëriñ Cheikh bëgg ba nga def ko waaye nee na lii de bëggu sëriñ Cheikh moom te dundam gépp ci la ko jeexal nee na kon nag moom ak i rakkam ak i njabootam yépp li ñu fas yéene mooy seen xalaat seen man-man seen doole seenu dund lépp ci liggéey bi lañ koy def ndax xam ne ne njariñul tey ak ëllëg mi ci liggéey bi ndax Serigne Cheikh defal na leen ko ci ba noppi ne na nañ gën a góorgóorlu te xam ne liggéey bi moom luy wéy la amul fu mu yem kenn ku nekk nag waxtu wuñ ci nekkee lépp loo ci man sëriñ bi nee na mi ngi lay sant nga def ko ndax man ak tële ñoo ànd te sun borom mayewut day able te lu mu la jox lu nekkit mën naa am ëllëg mu jël ko kon nee na waxtu wi nu amee li liggéey bi laaj ci am am nañ ko ci def waxtu wi nu féexee lu liggéey bi laaj ci jot nañ ko ci def nee na loolu la liggéey bi laaj ak dund la goo xam ne moom la ñu maanaam dunduk lislaam la goo xam ne sëriñ bi dañoo bëgg a tàggati fii ba bu ëllëgee lépp lu war a am ci suñu diggante bu ëllëgee bu ñu tajee ak suñ borom loola dara du ci xew wala bu lepp lu rafet rek lay doon sëriñ bi nan sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax li tax ngeen ñëw fi itam muy bisu serigne Cheikh ak serigne Mbacke mi nga xamne mom lañu ñaanal tay neena na loolu kenn ku nekk li des ci guddi rek lu mën jang ci alxuraan lu mën jang ci khassida lu mën def ci ay istighfar te ñaanal leen ko it mu def ko ci julli yeb neena mi ngi sant itam bu baax itam serigne Ahmadul mukhtar ak serigne Cheikh Madina ñi nga xamne ñoo jëwriñu kër gi. di di ñaan itam ngeen ñaanal sëriñ Ahmadou ak jëwriñam yooyu ñu yàgg fi lool te wér ñu yàgg seen gannaaw loolu la sëriñ bi waxoon na leen ko wax nee na sant leen bu baax gërëm na leen bu baax mi leen di ñaanal yàlla ñu dajawaat fi déwén kenn bañ a manqué te kenn ku nekkit lépp loo xam ne moom la bëgg ba di ko wut yàlla na ko suñu borom def loola muy gën ci moom mu teg ko ci loxoom lépp muy daw itam loola yàlla bu mu daje moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Isa